man na lépp te li gën ci yow sëñ Tuubaa dana la ko def jërëjëf sëñ bi nee nañ da ciy dolliwaat rek ndax boo bàkk tey jii nee kilifa yi ca Tuubaa ak wëllëre yi ak xarit yi yow yow xam nga ngi téléphone ngir bëgg bu ni mel nee na te fekk yow it loolu sekk muy sa yéene nee na fekk na yit nee lii nga naal nii nee na bëgg nga it ñu yëg ci te yëgoo ci kon muy lii nga tàmbali yàlla ci yàlla def ndam nee te yàlla def ci barke te yàlla def ci sutura nee na te la ngeen yaakaar lépp yàlla nu ko yàlla jotaleel ci barke Serigne Touba nee na nag bëgg na sax mu doonaat yeneen i jotaay nee na jërëjëf nee na xam naa ni nag yaa ngi ci joon kon nag noonu may rek mu mu gisee Serigne bi waaye buuna Idrissa kii sees ñoom ñaar dañoo bokk ndax xol ba daa rafet sëñ Xaadim loo koy def Idrissa xol ba daa xol ba rafet da nga koy xàmmee ci xaadim loo gay def foo ko gis rek da ngay njëkk a gis Idrissa Seck foo ko xoolee sourire ba nga njëkk a gis ñoom ñaar dañuy sourire rek dañuy reexee macha allah 1906 ah a tabax jumaay musante la maamam sëñ Daam Abdourahmane Lo moom lañ joxoon jàkkeer ga mu la ko a libéré la peau noire dëgg la boobu yal na yàlla barkeel あれあれあれうんうんうんうん